waaw eh, li njëkk d'abord dañuy eh, sant yàlla eh, sant yàlla ndax dañuy faral di wax rek nit ki lu mel ni su dalee ci sa kaw li la war rek mooy delluwaat sa borom nga tàllal ko sa loxo ñaan ko ndax dañoo dellu ci ku ñu moom ñaan ko mu jéggal ki nga xamante ne moom moo jiitu yàlla yërëm ko ci yërmandam yu gën a kawe yàlla yóbbu ko itamit ci jannatul firdawsi kon nag tey vraiment bés la boo xamante ne bés bu metti la metti ci ñëpp nekk loo xamante ne ñëpp la ñëpp a ko bokk ndax ku nekk xam na ne kii dem nii yaay la pour ñun ñëpp mais Sénégal yëpp a ñàkk waaw nekk na nit boo xamante ne patrimoine national depuis boobu noonu depuis bu mu génnee àdduna ñu ngi la fekk si kër gi ngay dem di dugg di lijjanti sooy conseil la waaye lan nga xay wax. waaw ah ni ma ko waxee léegi rek àdduna moom eh, ñun ñu ñëpp yàlla mooy suñu borom moom moo ñu moom. Mm-hmm. te am na loo xamante ne bu amee itam dañuy faral di wax suñu yoon nekk ci ndax ki rek jël. Mm-hmm. ci li ci rek ñaanal ko. dëkk ci di ko ñaanal waaye itamit gën a góorlu rek ci njaboot gi famille bi ñu ànd nekk benn gën a suudewu fexe ba nit ñi kenn du fekk seen diggante loolu dong la moo ci am solo su dee vraiment am naa conseil boo xamante ne dinaa ko jox yi mooy kenn du préparé wu ci dund bu mel nii maanaam kenn mënul préparé wu ci ñàkk say waajur mu nekk loo xamante ne dafa am ci diir bu gàtt da ñàkk noonu sa waajur wu góor ñàkkandoo noonu sa waajur jigéen waaye yàlla mooy kàttanal ñëpp te lépp loo xamante ne def na ko rek day fekk loolu tamit moo gën

yéen a ngi gisee Touba déedéet kenn def loolu kenn du bàyyi sa tool bàyyi sa yàlla baax a baax. ndeysaan déggal nga yaakaar ne na yàlla na ko yàlla dégg nga dégg nga bàyyi ndeysaan ndeysaan xoolal ma image bi ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw waaw waaw dab mën naa si wax wala. waaw waaw bismillah tey lan ngay wax témoignage. xar ginnaaw bi ñu santee yàlla rek ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi masawu famille Seckène bi yëpp vraiment. vraiment di ñaan yàlla di fi jóge di sunu yaay di yaay ju baax di yaay ju bëgg euh, maanaam ay doomam ndax yaakaar na ñun ñëpp ay doomam lañ xool waali xoolul keneen ñun ñëpp la jàpp def ñu ñuy benn du ko ñaanal fu mu jëm rek gënal ko fu fu mu jógee yàlla xare ko àjjana te Waly sekk yéen di woyof lool ci kawam vraiment tey sunu xool dafa metti daal ba tax na mënuñoo wax waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf daal lu jërëjëf. ça va monsieur le ministre. ça va na ngeen def. ñu ngi sant daal. ça va bien. dañu bëggoon am rek say témoignage par rapport ak décès Mame Diarra. voilà d'abord témoignage parce que euh, dëj moom ku ne xam ne dafa métti surtout fii nii waaw ñëw jaare si waa bi ñaanal moom xagum bi di ñaanal yaayam suñu dëkk yàlla xaare ko حاميا على حليلك العبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصعبه وتجعلي جميع حكمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات ههر قامعة مع السلام نوره لا ينحتح على الذي به أضايا منقتح سيدنا محمد والآل وصحبه في القال والمال وارفع جميع الصلوات اليوم لك وجنبني الهدى واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات الجائلة مع السلام الجالب لما أحب مزازعا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصعب وهم رياح مضى يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع السلام ظاهبة لنا سعادة وربحا وثغى يا معنيا عن كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض بلا عدا ولا أظن ولا مرد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى نسلنا هن يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي معجل كل مدفع سيدنا محمد والآلي وصعبه في القال